juróom-ñeenti waxtu asalaamaaleykum mbokk jàngeen jëf dal leen jàmm bisimila leen ci xibaar yi ginna na ci fas bu dee organisation mondiale de la santé dellu na gannaaw ci dakkal bi mu dakkaloon paj mi ci mbas mi jaarale ko ci chloroquine dafay rekk wane ni complot la woon dañu ka komandite woon di ay kàddu président commission qualité bu ordre des pharmaciens fii ci euh, Sénégal nas ay plan ngir woyofal mesure jëm ci dem beeg dëkk bi ak yeneen yu jëm ci ubbiteb l'école njiitu réew mi nag ñaax na si ministère yoo xam ne daal ñoom la mbir mi daal di concerné ci conseil des ministres bi fa amoon tey bëri na nag ay dogal yoo xam ne jëloon na ko fa euh, tey jëm ci euh, lii di njàng mi ak tamit ñii di acteurs yi ba ci mbay mi ak yeneen di ngeen ko déglu ci biir xibaar yi moom mii di Abdou Diouf junior mi ñu jàngal boobu boobule communiqué bu conseil de ministres gannaaw ñaari euh, gannaaw ñaar ñi fa amee lii di coronavirus ca kokki nag euh, maire bi jël na dogal tëj euh, luuma bi fay am dimanche bu ne muy nag ñaan askan wi daal di respecté li nga xam ne daal moom la ñu fay wax ngir ñu moytandiku euh, loole di mbas mi daal di fa law dina bokk ba tey ci xibaar ñaareelu pàcc ba tour du web yoonu tool bon santé gan gi ak Cheikh Diop jiite CNTS FC dina ci ànd ak Amadou Saba